Yérim yëkkati na ay kàddu euh, wax ni daal la xewoon moom du xew te itamit pare na pour képp ku ko nara a faagaagal ci li nga yor sa doole dina la faagaagal ci métier te li amoon ku ko defaatit dootoo ko dolli ñu dem dellusiwaat. réew ma ci ñoom parce que mënumaa def ak Ousmane Sonko. ah Diomaye. je sais pas Diomaye bon bref mënumaa def Ousmane Sonko mooy Diomaye de toute façon Ousmane Sonko laa mënta defal xam nga man nit koo xam ne yow xamoo. demoo fenn xamoo kenn kenn xamu la. mais pas maintenant. ba pare doo déglu dafal ndànk dafal ndànk doo jàpp ne yaa ëpp ñëpp xam-xam. yaa ëpp ñëpp làmmiñ. mais nag comme ñoom li ñuy wax. ministre yi ngay liggéey ministre da ngay jalouser Sonko wala ministre yi ngay liggéey non man lu ma wax ay fee la. ministre yi ngay liggéeyal ñëpp ñu ngi plaindre ci suuf ku mel noonu yow boo amee dignité wala nga gëm sa bopp di nga dem di liggéey moom. yow jàpp nga ni man dans la vie mën naa dem di liggéey koo xam ni du ma déglu. non dafa dafa pour l'intérêt du pays. nga ne pour l'intérêt du pays. l'intérêt du pays pour nga défendre intérêt du pays mais faaw ñu bàyyi la nga li ngay bëgg a doxal li nga gëm nga doxal ko. mais fii loo gàtt gàtt xam-xam xam nga ni les ministres d'Ousmane Sonko laa li lan la ñuy wax ci coulisses yi réew mi dafa tuuti te ñun ñëpp xamante ñoo jàng ci même université yi xamante bu baax <laughs> te ku mel noonu man mën naa liggéey ak moom. xalaatuma ko ci àdduna comprendre nga xalaatuma ko ci àdduna parce que man ku ma mënul ànd ak àndu nawle du ma ànd ak yow danañ marche sax bu ko jaree dégg nga wax li ma la yenn dossiers yi nga xam ni mënta lijjanti koo fii danañ jël ay avocat parce que xaalisu Sénégal fu mu dugg nañ ko leeral hmm. bu mu la lijjanti koo feneen mais avocat daa leen jël ñu liggéey sur des dossiers précis yoo xam ni dafa concerné xaalisu Sénégal maanaam ci gàttal man awma lu may bàyyi dégg nga baax li ma la dañuy taxaw temm ci réew mi. lan ngay wax les défenseurs de Ousmane Sonko yi nga waxam ne dañu waxoon ne dangay da ngay yàgg ci kaso bi. dañu fexe ba komba bi di loyal. Hmm. Ah. foofu. parce que bu combat bi loyalul. Hmm. lu nit mën a jël nguur teg ma ko. mën naa jël sama métier teg la ko lu gën a diis. lu gën a metti loo xam ne su ma la ko tegee réew mi tas non dama lay wax rek nañu fexe ba non man du ma waxantu dama bëgg combat bi loyal xam nga àdduna soit dañuy marché ci ay règle mhm. wala bokk mi ngi noonu Yirim neena loo ko teg ngir sa sañ-sañ ak doole ji nga am ci àddina lu mu man ngir teg la lu diis ci métier dana la ko teg te su lu ko teglee àddina tas waaye Yërim de li mu wax mu am naa ci ak moom tey. Oh. ndax lépp am solo. boo dee xool li mu wax rek la Ousmane Sonko di wax si réew mi ndax li mu wax lépp da koo teg bakkanam ci réew mi. Oh. fu sunu alal dugg dana fexe ba bañ jël ay avocat ba mu lijjanti buñ naree yàq réew mi dana taxaw ba réew mi di yàqu kon ñii gouvernement bi ñoo ko war a tàccu si li mu wax nii ndax ñoom loolu lañ bëgg gouvernement bi dañoo bëgg. Oh. lépp lu fi muy dugg mu leer. réew mi jubbantiku réew mi baax la fi amoon jóge fi te mm. Cheikh Yérim loolu la wax ni dana si taxaw tem pour mu am mm. kon pare na pour jàppale gouvernement bi si ni ñuy doxee mm. beneen bi mu wax li mu wax noonu am na solo comme ça tey ji man képp ku daw wut si ma pour nar maa faagaagal dinaa daw wut si la pour nar laa faagaagal ku ma dóor ma fayu si waxin loolu nag lu am solo la loo xamante ni wax na ko pour ñëpp xam ko nit ki boo ko dóoree bu mënee fayu day fayu kon nag bu kenn dóoree rek yaakaar naa lam wax lim njëkkee ni loolu si lay taxaw pour jël ay avocat pour ñu sàmm réew mi pour ñu jubbanti réew mi. Ah. loolu amee yaakaar naa ni kenn du daw wuti si moom su boobaa moom it du daw wuti si kenn. Ah. kon jàmm dana mën a am. en tout cas waxtaan na waxtaan bu am solo woo xamante ni man bi ma koy diglu bi mu tàmbalee dama koo taal sama téléphone di ko diglu far nelaw. Ah. moo tax lu bari diglu ma ko si. Mm. Mm. waaye am na solo daal. <laughs> Mm. joxe hélas. macha allah. Njóogu. <laughs> Yirim de bu ñu gisee ni mu waxee. Euh, ak ni mu ko waxee maanaam dafa ànd ak fit parce que yëriman bi bi mu génne ma nen dama gis nen di wax rek di bind yërim noppi mais génnam bii dafa gën a wane ni fa mu nekkoon la nekk te ku ko fi laalati teg ko ci sa bakkan bu la génnelee ay mbir di nga daw génn réew mi loolu nag moomoo ko moom moo ko ndax mu amuñu doole état bi xëy na la juddoo waxal waa xam nga yërim moom eh, moo tax bi muy dem di gëstu ci maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa di def ay njuumte moo tax ma xam ne li muy jàng eh, da ko déggul dégg waaw parce bu fekkee ne jàng na it eh, dafa am loo xamante ni bii da koo xamut sunu borom mooy may hmm. mooy seet lu ko neex mooy may ko nit xam nga yërim ba léegi dafa bopp bi xam nga fu mu ne waaw bopp baa ngi nekk ndeysaan yërim bopp baa nga nekk université Gaston Berger bopp yërim mi ngi nekk Jeune Afrique eh. bopp yërim yërim yëgagul ni ba léegi yooyu romb na maanaam hmm. loolu lay dund quoi yërim day dund ci démb démb comme la waaw te xamul ni ngi ci tey démb mooy démbam maa ah, jiitu maa jiitu ba may am xaalis amuñu xaalis waaw ba may xam nit ñi xamuñu ko ba may tedd ñu ngi jàng maanaam ci démb lay dund quoi mi ngi dund ci paase maanaam ci li romb hmm. ci jamono yi nga xam ne bi ñu ngi naan yirim hmm. foofu la nekk te xamul ni nekkatul foofu. mais ba léegi ñu ngi naan Yérim. nekkatul foofu Yérim bu demee ba mujj ci plateau yi. wax nga dëgg de oh. boo xam ne boo juumee mënuñu laa jubbanti. plateau boo xamante boo juumee xamuñu luñ lay jubbanti. wax nga dëgg de wax nga dëgg de maanaam sax xamuñu li muy wax xamatut xamatut boppam xam maanaam moom li muy dund maanaam Yérim benn paa buy nettali ay jalooreem. ba léegi. waaw paa buy nett li ay jaroolem defe maanaam plateau yi day toog ak ñoo xamante ay moroomu doomam lañ mu leen di nettali ay jalooreem. te xamul ni ñi ngi ci tey tey tey lañ ne. mais na xamul ni ñamu daan bëmb noon dama la bëgg a jox. mais wax na ci tey dafa xamul ni. Hmm. ñamu daan topp di leen naw. Hmm. fa ñu tolloon. ba taxoon ñu di leen topp di leen naw nga nga amoon problème mu am accès ci ñooñu. yëgul ni foofu la Ousmane Sonko hmm. maanaam ña mu daan lijjanti pour rencontrer leen yëgul ni foofu la Ousmane Sonko moom yëgul lool de hmm. moo lay wan ne la yirim ci démb lay dund ok xam nga da ngay topp ay nit di am ak ñoom interview ñooñu ngand nga leen di xoole parce que da yàgg dégg seen tur hmm. waaw waaw comprendre nga léegi nag moom gisul ki nga xamante ni kii tey bu ñooñu ñëwoon tey lañ daan incarné kan moo koy doxal kan moo yore flambeau bi tey ñoom ñooy ñëw pour wutali Ousmane Sonko. waaw léegi nag bu ñëwee ci célébrité dem naa ci ay dëkk dem naa fii dem naa fële. dem naa rencontré ay président. rencontre naa ay président kii ñee ñoo war a ñëw pour rencontre ko yow da nga waroon a dem pour rencontrer leen mais que ñee ñoo war a ñëw pour rencontrer ko. Mm. maanaam mm. différence bi foofu la dekk moo tax ma ne la yérim xamut li xew. waaw mais wax xam nga yérim mais bul fàttuwaale alaaji wax na ci tey xam nga yaa ni démb rek lay nekk. lan la wax ci tey. ah tey dëgg li mu wax. Ah. maanaam fi mu toll dana xeex. waaw bu jëree mars dañuy mars. Mhm. waaye ku ko tegati li nga ko tegoon ngir sa doolee àddina gi nga am. yérim kan lay xeex dina dina utiliser métier la loo xam ne boobu xam lan la lay gëmloo c'est que day impressionné ñi muy toog da leen di jéem a impressionné fu mu toog quoi. Hmm. yérim dafa def dafa bëgg a wax nit ñi ne combat la moom ak Ousmane Sonko maanaam loolu lu bëgg dugal ci bopp nit ñi mais Yérim fu Ousmane ko di combat du defee moom dara Yérim bari na lu mu xam de. xamul dara lu mu xam <laughs> Yérim lu mu xam Yérim xamul dara Yérim kenn la koo xamante ni jaar na fenn fii ci jamono ji nga xamante ni bii sénégalais yi ay complexe lañ nga nappee leen sa jaar-jaar loolu rek la. daf leen a nappee dafa nappee booy journaliste yi ay jaar-jaaram. Mhm. loolu kese la leen nappee. d'accord fii la daal di wax ñu. lim leen nappee kan mooy Yérim leen nappee nag jaar-jaar la de toog ay président ñu lay woo ah, toog ay président mais di tëjoog ñoom non tëjoog kenn tëjoogut ak kenn yooyu yu mu créé la Yérim hmm. dafay créé waale dem ba fekk fi ñu defaree bombe atomique ah, ah kii atomique wóor na yàlla day créé yooyu moo tëj dem na ba fi ñu defaree day créer. bomb yow alaaj da ngaa mas a fa gis kuy defar bomb moom mu dem fi ñu koy defaree. dama ne la day créer maanaam day créer maanaam day créer benn situation boo xam ne yow mi mu jàkkaar loolu mënoo ko cee weddi mënoo koo dëggal. léegi nag mu ne naa xam lu wax. Hmm? su ce que comprendre nga yaa ngi comprendre ñooñu li ñuy comprendre yow yaa créer sa mbiru bopp dugal fa sa bopp. dafa am benn grand bu ñemee yàlla. Hmm. grand bi da doon nettali. benn équipe bu mu doon football euh, Pikine mais année bi mu doon wax dafa am benn waay bu toogoon ci dëkk ci ci ci jotaay bi waa ji année boobu waa ji équipe boobu la doon supporter Gonay Zeng yaa ngi dégg. Hmm. Pikine am na benn équipe bu ñuy wax Gonay Zeng. waaw mais li problème mu waa ji waa ji lim na yi wax ji kii kii xeet mi ngi toog de moom. Mhm. parce que gars yi dañ ko indi woon pour tiiñal kii parce que kooku année boobu xam na ko wax ji di nettali match bi mu doon football. Mhm. mais sawaay bi ñu paree waa ji mënu koo wedde xam nga lu tax ko wedde waa ji nee na man joueurs yi mu wax yëpp. dëgg la waaw. yi mu wax yëpp ñi ngi doon football zeng mais moom xaw ma ko. te li wax lépp dëgg la. ma ne ko moom mooy fen wi. <laughs> lépp dëgg la waaye moom moo fexe ba dugal ci boppam mooy xen wi est-ce que comprendre nga mm-hmm. c'est que pour te dafa am ñoo xamante ni bii façon nit ñooñu lañ xam nga fii la taxaw tey pour te dire xoolal yërim fi mu toll yërim bi fi nguur gi nekkee Macky nekkee dane nguur kenn mënut a xeex ak moom nguur ak li mu xam ak li mu mën mm-hmm. tey moom moo bëgg a ñëw pour xeex ak nguur kon lim ñu doon wax du dëgg day weddi boppam ci acte yu muy teg. Hmm, ok. léegi moom moo bëgg a wax ne ne day def face ak nguur gi. léegi moom li mu wax loolu du journalisme de xam la la wax. parce que xamut dane boo ma tegee dara ma teg la maanaam li mu wax noonu mooy tey mën naa sosal parce que xanaa xibaar danga koy kii lan la fi xamal fi Ousmane Sonko yow bi ngay bind sa livre bii rek wax nga fi loo xamante ni bii ñëpp xam nañ ki nga xamante ni kii moo ko doon def ca jamono jooju yow yow doo nga yaa ko xamut. Hmm. nga jël ko bëgg koo orienté. ci kii te loolu ñëpp xam élection yi mu doonoon. 2011. waaw xamoon kan moo nekkoon candidat. Hmm. ak la xewoon kan la. yow hmm. dong yaa ko xamul ngay bind livre yow defe nga ni amati nga benn crédibilité pour mën a sànq wala nga yàq picc ci réew mi. Hmm. moo tax ma ne la Yérim moom dong mu yëgut ni xewi na. ba pare incohérent bi mu ci biir wax ji mooy bu ko ndaw si ne ndax pare nga pour jàppale nguur gi mu ni man bëgguma toog ak Ousmane. waaye jomaay mm, su soxlaa sama xalaat ma jox ko ba pare bu ko laajee mu ne ko jomaay sonko sonkoy jomaay déglu ma xam nga xam nga sos dégg nga ko li mu wax c'est pour benn créer benn euh, kii defe ne Ousmane day jéem a wër kan mooy fantôme bee dégg nga ko li muy jéem a sànni yooyu Sonko ko ci jiit gën a comprendre yëf yooyu bu yàgg ministre sonk yi buñ nekkee ci suuf li ñuy wax ministre yi sax dañoo war a def plainte collective. ah non non yóbbu ko ci yoon. non c'est que xam nga dafa mën a loolu. wax la yoo xamante ne dara amu ci na xam nga pour créer benn jéem a créer benn loolu mënoon na koo def ngir yëngal nguur yu njëkk ya. yaa ngi dégg hmm, mais loolu doxatut bu yóbbu mu xam ne yooyu doxut. ah mais nee nag ba muy yor ñii ñu ngi jàng yoruñu dara boobu. ah non yor moom. yàlla teral waaw xam nga xam nga yor moom. Ah, yàlla teral yor moom bi ñu demee ba jël ni ba jël teraanga. Hmm. Ah, teg ko ci kaw xam-xam booba réew moo def loolu sax mu màbb parce que tey dafa am yoo xamante ne bi ay valeur dafa am dafa am yu ñuy nattee nit mais dañoo xëy rek réew mi ñëpp di natt nit ci am-am mhm. alal mhm. doonal sàcc doonal dëmm doonal loo doon mhm. mais amal doonal traître doonal workat lu mën a doon amal boo amee rek nit ñi teg la soog mais léegi loolu mi ngi dañ te yëguñu ko loolu sénégalais yaa ngi ciy génn de barke rasul lay am na ñoo xamante ni bii tey asan buñ la joxoon li ñu am ne la nga yenu ñoom ni leen sénégalais yi jàppee nga yenu ko mu ne ci yow nga lànk ne bëgguma waaw ba parce que am na fii ñoo xamante ni bii boo leen gisee danga leen di ciipatu xam ni ñii ak luñ mën a yor safu la c'est parce que du loolu ngay wër mhm. léegi sénégalais yi wëratuñu ne am rek ak noo mën a amee déedéet mais am ci dignité am ci ngor mhm. te dafa mën a ne yaa ngi dégg mhm. dafa mën a ne tey jii man parensaay ma gis nit billaahi di wane li mu am dama koy yërëm sax damay wax ne ndeysaan kon kii ci lii la nar a dund ba xëy tàngoo suuf hmm. ci am am bii la nar a dund dama lay yërëm ah doo ko ñëwee billaahi duma la ñëwee du ma lay ñeewee d'accord quand même allah